humblement humblement li may invité di ko ñaan tous les acteurs politiques mooy ñu mettre ces question la hors du débat public lan moo ko waral ndax loolu suñu réew xamuñu loolu dañuy wax ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar man dama koy wax te dama ko gëm fii ci assemblée bi walla ñi ñuy seetaan wala ñi ñu seetaanul nekk Sénégal wala ñu nekk bitim réew amul famille booy dugg amul famille booy dugg te doo fa gis ay ethnie yu bëri yu sëyante seen biir amul mais famille boo dugg di fa gis ethnie xeet yi nekk maanaam ethnie yi nekk Sénégal yëpp di nga fa gis di nga fa gis Wolof di nga fa gis séeréer di nga fa gis joola te tey boo bu ñu taxawee fii di wax nii dañuy stigmatiser walla dañuy xeex joolaa mais mais mais kooku boo ko déggee à la fois da ngay choqué mais da ngay wax ni ñii lan lan lan la ñuy wut maanaam li ñuy def nii lan lañ si jublu mais j'aime pas parler de moi parce que comme j'ai dit toujours du suñu euh, habitude ñu koy def mais léeg-léeg bu ñu lay tuumal yenn yi baax na nga leeral baax na nga leeral man tey nan lay bañee joolaa wala ñu ko ma koy compte bu fekkente ne man ñaari doom yu góor yi ma yàlla sëdd seen maam jeeju ak baaji la sant cosaanoo kañobon fële ca département Bignona ah oui mais mooy Sénégal voilà loolu mooy Sénégal mais mais mais et et, je voudrais faire d'ailleurs beneen exemple et lu tax ma koy def parce que je suis fier de lui dina citer beneen exemple parce que je suis fier de lui turandoo bi ma njëkk am ci àdduna mi ngi tudd Antoine Félix Bodian turandoo bi ma njëkk am ci àdduna Antoine Félix Bodian la tudd actuellement mu ngi Sciences Po en France te ki ma ko tuddee mun naa ko wax fii Seyni Bodian la tudd nekk magistrat bokk ak man promotion te école la daje mu xool ma mu ni dama ko neex benn jour soxnaam am doom mu woo ma mu ni ma yow laa koy tuddee ma ne lu tax mu ni ma non da ma neex rek joolaal euh, Antoine Félix Bodian su ma doom la Aujourd'hui, ñu ngi Sciences Po brillant brillant mais mais donc thème yooyu ay thèmu ethnie nañ ko teg ci suuf Sénégal xamuñu noonoo xamuñu ay ethnie li ñu xam mooy suñu diversité richesse la si ñun loolu mooy waral culture boo ci dem di fa mën a jëlee loo xam ni lu rëy la lu foor la te mën na jariñ réew mi yëpp li ñu am ñun ñëpp nañ ko dajale ci penc mi mu jariñ loolu moom mooy Sénégal mais du noonoo du xiiroo du ŋaayoo beneen thème bi mooy force de défense et de sécurité xam nga président de la république waxoon na ci dialogue bi ci njekk ak teranga nañ ko ñaan waaye ci njëkk ak teranga man maa leen di ñaan bàyyi leen force de défense et de sécurité hors de ce débat parce que c'est pas républicain que de vouloir les mêler à ça c'est des hommes mais d'une exemplarité qu'on ne peut même pas imaginer ay nit lañ yoo xamante ni du ñu nelaw chaque jour ñu ngi ci terrain bi di sacrifier wu au péril de leur vie ñooñu liñ leen amal ñun ñëpp ak fu waay mën a féete mooy sargal leen njukkal leen waaye du di leen xarab wala di leen ñaawal wala di leen dëkkal foo xam ne dëkkuñu fa kooku du rôlu kenn si ñun parce que ñun ñëpp ñoo ci bokk yam ku ci jaaxle dem seeti leen ñun ñëpp ñoo ci bokk yam fii kuñ fi def dara wala ñu wax la fi dara te neexu la sa réflexe mooy dem ci force de défense et de sécurité yi parce que ñoom ñoo yor sa kaaraange ñooñu dañ leen war a jaajëfal jaaraama leen delloo leen jukkal alors euh, sëñ euh, honorable député Massata dégg naa bu baax li nga wax euh, enregistré nañ ko noté nañ ko bon assume nga nii da ngay def hors sujet kooku c'est un choix et nous respectons ah c'est Mamadou Niang voilà alors si émigration clandestine bi honorable Ndiallo Bathily euh, posé na si question euh, may wax ni xëyu ndaw ñi ci ni mu ko waxee li ko tax a jóg mooy joxe emploi te ku nekk gis na résultat yi ci ku ne gis na euh, koppar yu bëri yi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall def ak emploi yu bëri yi mu jur boo demee ci wàllu environnement nga dem ci wàllu assainissement ak domaine santé domaine yu bëri lan la jur waaye loolu bokkul dara ak émigré ak cause u cause exclusive émigration irrégulière émigration irrégulière c'est plus compliqué que wàllu xëy wala wàllu économie le 28 juillet bi passé fële ci benn hôtel premier ministre ñëw na d'ailleurs jour boobu y a eu des parlementaires qui étaient là-bas on a invité euh, honorable Ali Mané d'ailleurs gisante nañ foofu le 28 juillet bi passé mu am liggéeyu fukki weer daanaka ak juróom-ñett bu benn comité technique def boo bokk ko ak benn expert bokk ko ak ay ONG bokkoo ay association bokkoo ak ay association de migrants de retour ñu demoon tukki ñibbisi def mbootaay ngir jàppale état bi ci xeex loolu nga xamante ni mooy immigration irrégulière biñ ci liggéeyee fukki weer ak juróom-ñett ba noppi ñu am ci benn stratégie ñu am ci benn stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière bu ñu valider politiquement après la validation technique li ñu gis mooy dëkk réew réew mi ay pôle dafa am li ñuy wax les zones de départ mooy fii faral fi nit ñi di faral di jóge di déparé pour dem mais am ay zones yoo xam ni fa la ñuy jóge fi ñuy déparé sax bu tout le temps foofu la ñuy jóge mu am cause économique certes pour certains cas mais am yeneen kaa yoo xamante ni seen même sociologique ay cause la yoo xamante ni boo demee nga jàngat ko xool ko da ngay gis ni ñiy dem du koom-koom moo leen tax a jóg mais dañuy dem ndax gox bi ñu dëkkee amaana bu dee doo tukkikat am na benn reconnaissance sociale boo xam ne xañ na doo ko fa am te ci seen aada ak ci seen tradition daf ci bokk nit di tukki loolu mooy waral léeg-léeg ci yenn zone yi gis nañ fa ay nit yu fayal seen bopp fayal seen ay xarit dénkaane xaalis ci boutique pour bàyyi dépense su ay weer yu bëri laata ñuy dem ni dañuy tukki donc kooku du cause économique mais nature cause bi leneen la ba tax na damay bañ ñu ut ay raccourci yu simple mbir bu fekkente ni dafa am ci solo mën nga ñëw ci service yi walla nga taataan lii information yi ci mën a boo jokkoo ak ñun wala nga jokkoo ak comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine wala sax député yi ñu boole woon ci liggéey bi ñu gën a leeral lan moo waral cause yooyu yëpp ak lan lañ teg comme plan et même plan bi du loo xam ni day ñëw ci benn fan wala ci ñaari fan wala ci weer mais plan la boo xam ni 2023 2033 la xeex la bu mu war a doon xeexu fukki at du xeexu benn fan du xeexu ñaari fan pour wax ni lu gën a compliqué la que niñ koy présenté alors euh, je pense que monsieur le président globalement j'ai fait le tour des questions je vais faire un petit résumé en français monsieur le président mesdames messieurs les honorables députés nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention l'ensemble des questions qui ont été posées, mais également les analyses et commentaires se rapportant à l'examen du projet de loi qui est soumis à votre appréciation ce jour 5 août 2023. Je voudrais d'abord rappeler que le projet de loi ne concerne pas que la modification de l'article L28.3 qui permet, lorsque la durée, de la, la durée restante